le président du parti Pastef tontu na ko ko parce que nee na ici au Sénégal euh, on tolère les homosexuels même si c'est euh, criminalisé wala <laughs> bu fekkee sax dañu koy loi bi da koy bañ euh, c'est toléré maanaam moo tolérance boobu nga xam ne Ousmane Sonko utilisé na ko moo waral coow li yëpp ah, ñu bari di dal ci kawam depuis lors gis nga débat bi tourne autour de ça ban jàngat nga ci am ce qui s'est passé à l'université encore on avait vu Obama ñëw na ba fii di ñu euh, andil affaire homosexualité tey jii encore euh, c'est plus catastrophique avec Mélenchon. waaw gis nga euh, yàlla dogal na. bëri na ci lu nga xam ne nii man ànduma ceek ñoom. Mhm. l'actuel pouvoir. et itam gisoon naa si la. Mhm. li nga xam ne nii ñun bi ñu yàlla suturaalee ñu nekk ay enseignants alhamdulilah. Mhm. dañuy anticiper sur beaucoup de choses. Euh, élection yi avant muy am. Mm-hmm. ba ni élection yi déroulé woo. Mm-hmm. contexte bi nga xam ne nii moo nekk di am. Mm-hmm. premièrement ci collectivité territoriale yi crise bii ma lay wax aussi au sein du ministère du travail crise bi nga xam ne mënuñu koo gérer moo indiwaat yeneen détails yu bari loolu bu ñëwee ci secteur de l'éducation incha allah dinañ ci gën a xuus. mais ci contexte bi euh, quelque fois sénégalais yi seen analyse euh, daf may xaw a jaaxal yàlla dogal na li mu wax c'est la triste réalité. am na ñu nga xam ne dëkk nañoo borom ñaari tur seen biir kër mu wóor leen ne moom la. Mhm. mais rayuñu ko xasuñu ko saagawuñ ko sàndiwuñ ko ñu ngi koy gérer. ñu ngi koy am na ñu nga xam ne nii aussi biir quartier bi ñu nekk identifier nañ ñu nga xam ne ñoom moom lañ mais taxul ñu leen di sàndi ay xeer et cetera. Mhm. dañ leen a tolérer ñi ngi nekk ak ñoom ñooñu nag ñoo war a am xel. Mhm. xam nga bu la seytaane mu ne ba nga def lu nga xam ne nii meluwut parce que nag suñu borom subhaanahu wa taala moo ñu fi wàcce moo wax doomu aadama nu mu war a mel ak nu mu war a contesté wu. Mm-hmm. ni mu war a comporté wu. nit ki bu ko seytaane mu ne ba mu mel safaan loolu xëy na seytaane ëpp na ko doole ci ndogalu suñu borom. Mm-hmm. mais bu mu ko puukarewu bu mu ko bànneexu. gis nga ñii ñii topp di leen wax nañ affiché wu ay mariage homosexuel et cetera. ñooñu dañoo réer ba fu réer yem. Mm-hmm. man suñu mbokk sénégalais yi nga xam ne seytaane mën na leen am nañ nattu ba loolu dal leen nañ ko dund dans la plus grande discrétion man je crois que le premier ministre fii la waxee mais nag buñ bëggee yegg ci. Euh, comme ni ñu koy defee ay gay pride euh, ay def seen manifestation cérémonie de mariage et cetera loolu moom c'est offenser toute la société. Mm-hmm. te ñun ñëpp jàng nañ xam nañ ci taarix Euh, société boobu luut nekkoon. Mm. biñ leen di alak ni mu mujjee ñun aussi bu ñu sàgganee ba loolu ëpp ñu doole ba ñoom niñ ko amee ni ñun ñu koy parce que Sénégal réewu jullit la réew yi ci des ay Angleterre ay Amérique ay France boo gisee mu leen di jik ñu koy def. Mm. parce que duñ ay jullit mais ñun ñoo nekk ay jullit. Euh, nekk ay chrétien c'est-à-dire presque tout la population sénégalaise est croyante. Mm. ba pare am yenn ñaawteef yoo xam ne suñu boroom dafa tëkku ñi ko mel. Euh, ñun ñuy seetaan di accepte mu nekk li wóor nag mooy comme ni mu ko waxee effectivement la société elle tolère très bien. pour yow d'accord nga ci tolérance boobu. pourtant moo jur coow li de. non ce sont les faits. c'est-à-dire c'est-à-dire tolérance benn ba benn benn baat la la la benn signification la am benn sens la am. li mu wax nañ ko daal. loolu mooy li am. tolérance euh, li li ma wax. li maanaam xam naa ni lii la mais accepté naa ko. maa ngi dund ak yow mais li may wax li beaucoup de famille sénégalaises. Mm. am nañ euh, élément bu mel noonu seen biir famille mu wóor leen ne moom la aussi mais ndax dañ koo sànni. wala ndax et cetera nit ñi mën nañ ko mere seen biir xol mais yegguñu ci extrême daa di koy posone te bés bu ñu ko defoon aussi yoon dal seen kaw. Ah, parce que fi li amoon fële ca ca ca kaw la. waaw lo góor góor jigéen bi de décédé ñu war ko suul. <laughs> Ah, lo lo lo loolu ay exception la. Mm-hmm. mais man mais man li wóor li wóor mooy diggante bi may commencé xàmmee sama age de 10 ans. Mm-hmm. ba fii may wax ak yow. presque bëri na fu ma jaar fu nga xam ne nii muy ci quartier danaa gis nit bu nga xam ne nii effectivement avec sa démarche. Mm-hmm. réputation bi loolu la. da koy assumer. mais taxul nit ñi dal ci am na ñu assumer sax seen boss. na bëtuwuñ moom laay wax. surtout avec les réseaux sociaux. léegi nag <laughs> exagération bi ñu bëgg nañ leen jox loi ñu libre di def lu leen neex. ñun mais xam nga lu tax Ibrahima Diako peut-être la réponse de Sonko jur toole bi parce que Ousmane Sonko bi mu nekkee ci opposition bi dañu gisoon ni ñoom même am na élection yu ñu doon amal élection législative je pense euh, bi muy diriger list boobu bi mu doon campagne pour da doon wax ni sénégalais yi. jox leen ñu la majorité à l'Assemblée nationale su ngeen ñu joxee la majorité à l'Assemblée nationale ñun suñu demee dinañ def li ngeen bëgg moom mooy criminaliser l'homosexualité n'est-ce pas moom moo ko waxoon moom moo jiite woon moo doon def campagne élection c'est vrai que bokkul woon ci député yi mais moo doon def campagne pour les députés loolu la doon wax voté leen ñu ñun danañ suñu amee majorité dañuy dem assemblée nationale dañuy criminaliser homosexualité parce que xam nañ ni bëggoo leen ko boobu sax euh, approché woon na ak sàmm jikko yi collectif yi fi nekkoon ainsi de suite si campagne boobu aussi gis nañ ni ñoom am na lu ñu defoon sax ba ba ne bu leen voteel liste bi nga xam ne dafay soutenir les góor jigéen moom mooy liste su Benno Bokk Yaakaar mhm. ànd leen ak ñun parce que su ngeen ñu joxee majorité à l'Assemblée nationale on va criminaliser l'homosexualité c'est vrai waaw wala déet Ousmane Sonko moo ko waxoon mhm. ñu gis ni ñoom sax bi ñu demee Assemblée nationale à un moment donné presque am na ñu majorité parce que sës nañ rek opposition sës na rek euh, Benno Bokk Yaakaar mais ba tey mënuñ am euh, benn majorité bu leen di permettre mais gis nañ ni jëluñ benn yoon projet boobu dugal ko euh, foofu foofulee ci assemblée nationale. kon tey jii dañu doon xaar bu fekkee Ousmane Sonko Pastef yàlla def na nguur gi ñoom ñoo yor nguur gi yàlla def na mu nekk premier ministre tey jii bu Mélenchon ñëwee tenir un discours radical pour wane ni moom dafay défendre sans faille les homosexuels ah. kon dañ doon xaar aussi Ousmane Sonko tenir un discours radical pour wax ne ko ah yéen lii ngeen bëgg mais ñun fii fa ñu jëm mooy bis bu ñu amee majorité on va criminaliser l'homosexualité parce que bëgguñ ko peut-être ñu bëri loolu lañ doon xaar si Ousmane Sonko parce que discours boobu la amoon bi mu nekk si opposition bi tey jii mi ngi si nguur gi on on on attendait un discours radical de de Sonko devant Mélenchon peut-être looloo tax euh, sénégalais yi accepté wuñ mu tolérance jóge ci. pourtant nag Ousmane Sonko. pourtant nag pourtant nag man je crois bien que son discours a été suffisamment radical. Mm-hmm. c'est-à-dire wax na ko. Mm-hmm. am na lu nga xam ne ñun suñu religion lii la ñu permettre. Mm-hmm. am na lu nga xam ne permettre guñu ko. li wóor aussi mooy les faits ñi ngi leen di tolérer. lii moom ce sont les faits lu am la. ñu ngi leen di tolérer tout la société l'accepte euh, la légalisation de leur manifestation. ak euh, de leur mariage. lii moom euh, je crois bien qu'il a été catégorique et li wóor aussi mooy la criminalisation de l'homosexualité buñ ko criminaliser woon ndax day tax ku ñu identifier homosexuel la rek dañ lay jàpp tëj la ci kaso bi mais il faudrait que ñu surprendre act bi. comme trafiquant drogue yi trafiquant armes yi le voleur ñoom danañ continuer peut-être ñoom dana leen permettre ñu gën a suturaal seen bopp ñoom ñi nga xam ne nii nekk nañ ko mm-hmm. ba duñ leen jàpp ci acte contre nature yi mm-hmm. kuñ ci jàpp aussi bu boobaa euh, danañ ko yóbbu ci kaso bi li wóor mooy comme niñ ko waxee bu buñ ko criminaliser woon c' est pas parce que identifié nga kii moom la rek da nga koy jël yóbbu ko ci kaso bi il faut nga bett ko en flagrant délit mm-hmm. ma gis ñuy wax ñëpp ñoom reconnaître nañ ko am na fi. li ñuy ñaan mooy nañ suturaal seen bopp. mais bés bu ñu affiché woo nag bañ surprendre leen parce que bu ñu topp kenn ba ci biir néegam di suivre di ko di ko muy def contre nature. Mm. bu suturaalee boppam yàlla suturaal ko mun na cee génn. ba mu layoo ko. Euh, très bien. Mm. ba yàlla suturaal aussi mu génn mais bu mu heurté kenn quand la loi léegi nag c' largement suffisant. la loi bi euh, très suffisant le fait de criminaliser nag peut être aussi mooy peine bi. mooy gën a sévère peut-être que li nga xam ne ni moom moo fi nekk. Mm. loolu aussi pour dissuader. maanaam kuñ si jàppati mën nga tëdd 10 ans. Euh, très bien euh, très très bien mën nga tëdd 10 ans parce que parce que itam ay Jean-Luc Mélenchon. Mm-hmm. ñoom c'est comme ni ma la ko waxee il est en train de de de courtiser les lobbies LGBT. dafa bëgg pouvoir. Mm-hmm. gis nga li ñuy wax toujours mooy li may wax naan sénégalais yi xaw nañ manqué xam euh, Sénégal. Mm-hmm. surtout les politiciens. gis nga démocratie dafa am ñu ko inventé ñoo ko moomal seen bopp. réew mu am démocratie dañ koy contrôler au millimètre près. ñaari yëf. bés bu ñu gisee les candidats potentiels yu nga xam ne nii nekk nañ favori danañ la teel a approcher par leur manière danañ la soutenir. Mm-hmm. à condition que effectivement nga accepter coopérer bés bu leen wóore na aussi vous êtes doo leen jàppale danañ def lu tout ba doo falu. et très souvent ils le réussissent muy États-Unis muy Angleterre muy muy France muy fu mu ci mënti doon ce sont ce lobbies ñoom ñoo yor les pouvoirs partout où il y a démocratie nag sans aucune exagération ñoom ñoo moom démocratie ñoo koy maîtriser la démocratie elle n'est inventée que pour maîtriser le parti au pouvoir boo nangoo dox ci seen waaw ñu soutenir la accompagner la bés boo leen jéemee contesté aussi dootoo noppalu complot sur complot ba ba ngay jógee. Hmm. ba ba ngay jógee ci pouvoir bi li ma la wax front islamique du salut avec hmm. l'Égypte hmm. Euh, l'histoire récente de des frères musulmans Morsi en Égypte yii mooy yi fi am ku échappé ba jël pouvoir. nga leen di contester et puis d'ailleurs il a lancé un défi moom Ousmane Sonko yéen lii ngeen di xeeb ci wax. Sénégalais yi dama leex il s'est exposé de. il est allé trop loin en montrant que li ci sénégalais yi mën a muñ liñ ciy toléré ñoom ñu ko passé et Jean-Luc Mélenchon comme ni mu ko waxee bi mu koy porté c'est pour que ñoo ñooñu mën ko soutenir ëllëg ak si biir. Hmm. pour mu mën a jël pouvoir nii rek la demee.